الفرقان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 108 Rewmi FM 97 point 5 moo xam ci plateforme YouTube bi la wala Facebook ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam te muy nuyu waa aljanna ñoo ngi leen di wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dellusiwaat nañ ak suñuy émission bi fi jaar di jotaayu koor waxtu bi xam ngeen ne bu jotaan dinañ fi toog nara waxtaan ak yéen la nga xamante ne mooy suñu yu diine ñuy sant di gërëm mboolem auditeuru télé yi walla mboolem auditeuru rajo bi wala ñu ñuy topp ci suñu plateforme jotaayu diine bi ñuy am ak yéen ci télé bi wala ci rajo bi wala ci plateforme yi yàlla bu mu neen yal nañu si yàlla defal yiw xam ngeen ne ñu ngi ci weeri koor fukki fan yu njëkk yi weesu na ñu ngi ci ñaareeli fukki fan ya nga xamante ne tàmbale nañ ko ci tey wala démb su ko defee ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa lu jot jàll yan na ko yàlla nangu lu ñu nekkee nii yan nañu ko yàlla jàppandalal lay ñëw te mu dëkkmul yan nañu ko yàlla matal ba ñu ko woor ci jàmm mbokk yi xam ngeen ne jotaayu koor fii ci Rewmi TV dinañ ànd ak waxtu wi boole kook suñuy technicien ñu nekk ci wàllum xarala gi ñu di leen nuyu di leen sant du ñu def dara lu dul ñu tàbbi ndoor ak yéen ci suñu waxtaan bi nga xamante ne démb fa la ñu tegoon suñu loxo mu doon suñu alwa bu njub démb tey ñu nar fee suuf leneen li nga xamante ne mooy bunt bu njëkk su ko defee ñu ànd ak suñu technicien bi mu daal di ñu ko dégtal bi iznillahi subhanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ne islaam da di diine joo xamante ne diine ju organisé wu la diine la boo xamante ne du xel du xalaat waaye xam la diine bi dafa tegu ci xam-xam ba tax na yonent bi nga xamante ne mu ñu xamal diine bi nu mu mel nu mu nekkee ba tax na organisation diine bi moo ñu ko njëkk a tëralal ba tax na ci xadisu abdullahi bun umar radiallahu anhu nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه mbokk yi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag di Abdullahi bun Umar radiallahu anhu moo ñu baaxee nañu naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diine bi ñuy dund nii di diiney islaam ñu ko yenu ci juróomi kenu juróomi ponk ñoo yenu mbaaru islaam bi nga xamante ne mooy diiney islaam juróomi mbaar yooyu wala juróomi kenn yooyu yenu mbaaru islaam bu ci jiitu mooy yow jullit bi danga nga war a seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudut yàlla te nga seede ne tamit muhammad dëgg la yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi mooy danga nga war a doon kuy taxawal julli ci mbooloo nga respecté waxtuy julli ñetteel bi mooy da nga war a génnee azaka bu la yàlla mayee alal banque mën a génne ñenteel bi mooy xadis bi dafa jiital xaj balaa sawm waaye ñeenteelu ponk bi ci xadis bañ leen di jàngal nii mooy da nga war a dem aji màkk bu la yàlla mayee wérgu yaram ak alal ba kattan ba juróomeel bi mooy danga nga war a woor weeri kon wooru weeri boobu ñu nekk nii ci moom lañ fas yéene ànd ak yéen ñu gën ko yaatal bi idnillahi subhanahu wa taala nga xamante ne jullit bi saa yu mu lee juróomi keno yi lañ koy war a mën a valider ne moom jullit akkan la waaye benn kenu bu manqué ah dinañ xoolaat na mu doone jullit ci keppaaru islam benn kenu bu manqué masalan mu daal di sàggane julli wala mu sàggane joxe azaka te mu man ko wala mu sàggane aji makka te mu man ko wala mu sàggane woor weeri koor te mu man ko benn ponk boo ko sàgganee ci ponku islam dañuy xoolaat ne yow sa njulite bi nu mu doon kon julitey waay du mën a mat du war a mën a ñang du war a mën a ñoŋ jàkk ba nga doon ki nga xamante ne da ngay remplir juróomi condition yi kon juróomeeli condition yi nga xamante ne moo nekk ci xadis bi mooy juróomeel bi di war soomu ramadan yow jullit bi da nga war a woor weeri koor yàlla suñu borom tabaraka wa baaxe nañu ci alquranul karim nee nañu ay ayyaaman maadudaat ay bés yu limu lañu ay bés yu limu lañu kon duñu woor weer wi yëpp bañ ci teg leneen weeru koor la si farata mooy fan weeru fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent su ko defee nga woor ko comme na ko islaam jàngale woor boobu noonu noo koy wooree noonu lañu suñu yonent bi sallallahu alayhi sallam jàngale ci ñaareeli bunt bi nga xamante ne moom lañu bëgg a suuf bunt bu njëkk bi su ko defee ñu ànd suñu technicien bi mu dal di ñu àndil ñaareeli buntu bi bi iznillahi subhanahu wa taala mbokk yi yonenti boobu sallallahu alayhi wa sallam ba léegi moo ñu dégtal la nga xamante ne mooy ñaareeli buntu bi te mu jàngal ko taabiina yi taabiina yi ñooy ñi nga xamante ne ñu topp sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñay taalibe sahaaba yi nag kii ñu bëgg a waxtaanal nii kooku ci la bokk mooy ibnu qayim rahimahullah qaala imaam ibnu qayim rahimahullah imaam ibnu qayim yan na ko yàlla yërëm wax na nee na afdalu sawm aktharuhum dikrullahi azza wa jal fi sawmihim si de xaaji malik boroom xam-xam bi de ibnu qayim rahimahullahu nee na afdalu sawm gën ci koor ba jullit bi di woor bés boobee mooy kan aksaruhum zikrullahi azza wa jal fi sawmihim mooy ñu nga xamante ne saa yu ñu fas yéenee dugg ci koor dañuy woor àndaaleg di tudd yàlla kon nga déggee ci ne yow mi woor yow di aji woor bés boobee waroo dàq sa koor ci ay folklore ci ay caaxaan dem toog ci galan yi dem toog ci yoon yi dem toog fi nga xamante ne doo fa wax dara lu méngug islam kon da ngay loofloo sa koor doo jàng alquran yoroo kurus nekkuloo di tudd yàlla nekkuloo di def lenn nga toog rekk di nekk ci li nga xamante ne kenn waru koo war a mën a nekkee ci weeru koor loolu day wàññi sa bunuusu koor bés boobee moo tax boroom xam-xam bi di ibnu qayim rahimahullahu nee na afdalu siyaam aw afdalu saw gën ci koor ba nit ki di woor moo xam weer wi walla bés boobu mu jàpp koor aksaruhum zikrullahi azza wa jal mooy ki nga xamante ne daa jàpp koor àndaalek loolee mu di tudd yàlla lu mu gën a bëri ci Muhammad zikrullah dinañu jàpp jëlal sa kurus ngay tudd yàl fii buñ ne zikrullah demal fi ngi ñuy tafsiree alquran ci jamonoy weeri nga toog di déglu firu alquran zikrullah lay tudd fii buñ ne zikrullah ubil sa alquran ngay jàng sa téere alquran bi léegi dinañ ko tuddee zikrullah fii zikrullah dinañ ko jàppee ne demal ci fu ñuy waaraatee nga toog déglu la nga xamante ne dalay yokk ci sa diini islaam bi léegi dañ koy tudde zikrullah yow mi toog taal sa télé jàpp réew mi TV jàkkaarloog suñu émission bi fiy jaar di jotaayu koor bi léegi loo fi jëlee lalay yokk ci sa diini zikrullah lañ koy tuddee bi léegi kon ibnu qayyim rahimahullahu nee na képp koo xamante ne woor nga sa koor boo ko waree mën a jox ngéneel bu toll nii la yàlla sopp yonent bi gërëm ko mooy nanga bari nangay tudd yàlla jamono bi nga woor kon nga déggee ne ndekete doo nekk di woor après di def leneen lu wuteeg di tudd yàlla kon yow mi woor yow sama mbokk yow mi woor bu jël sa koor laxas ci loo xamante ne waru ci nekk waroo woor ba pare ngay wax lu waxuwul waroo woor nga nekk ci li nga xamante ne ku la ci gis danaan xanaa kii wooru déedéet sa koor warul mel noonu waaw jamono bi nga wooree bés boobu da nga war a wane ne da woor yorul sa kurus di tudd astaghfirullah di tudd subhanallah di tudd allahu akbar xeetu yooyee walla nga yore sa jukkum kaamil nga di ko ubbi di si nab nabi wala nga dem fu ñuy jàngee alquran wala fu ñuy firee alquran hakada loolu la ñuy tuddi zikrullah moo tax ibnu qayyim nee na afdalu siyam afdalu sawm aktaruhum zikrullahi azza wa jal fi sawmihim nee na gën ci koor ci woor yi mooy ki nga xamante ne bu wooree day bëril la muy tudd yàlla jamono bu mu wooree subhanahu wa taala su ko defee ñu bindal ko yiw yiw jooju noonu nag moo ñuy yóbbu ñu tàbbandoor ak yéen suñu ñetteelu buntu bi nga xamante ne moom lañ leen bëgg a dégtal bi iznillahi subhanahu wa taala fii ci réew Rewmi TV ci émission bi nga xamante ne mooy jotaayu koor mbokk yi suñu ñetteelu buntu bi nga xamante ne moom lañ leen bëgg andil mooy lay suñu yonentu bi baaxee ci xadis bi nga xamante ne mooy qaala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam man qama maa al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla sahihu tirmizi Sidi Haaji Malik Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy baaxee xeetam ci hadis bi nañu man qaama képp koo xamante ne taxaw na maa al-imam ànd ak imam hatta yansarifa ba di pare ca julli ba muy julli kutiba lahu bind nañ kooke qiyaamu leyl tiyaaba ku taxaw guddi bi lu ñu mën a déggee ci xadis bi mbokk bi mooy ki yàlla yoon yónni di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo ñuy baaxee ci xadis bi nañu képp ku woor weeri koor ci bëccëg bi guddi bi nga taxaw ak imaam moo xam ci jàkka ji la moo xam ci jumaa ji la moo xam ci bayaal bi la moo xam fu mu munti nekk waaye nga taxaw ak képp ku la mën a jiite ci julli taraawe nee na yonent bi nee na kutiba lahu dinañ la bindal qiyaamul layl tiyaaba ku taxaw guddi bi yépp di ko naafila yow sama jigéen yow sama doom ndey yow sama doomu baay yow sama xarit yow jeune bi ngalawaay boo wooree bëccëg bi guddi bi nanga géema géem góor góorlu taxaw yàgg imam ci naafila yi ba keroog muy pare raka yi nu ñu gudd gudd nanka muñ raka nu ñu sore sore saar nu ñu gudd gudd nanka muñ ndax boo fàttali ko yaa ngi perte sa temps ci loo xamante ne amul la benn njëriñ te lii moo gën a ëpp loolu njëriñ taxawaayu naafi la gannaaw bi nga ndogo loolu moo gën a ëpp njëriñ loolu nga nekkee quatre-vingt-dix ba ngay toog di seetaan football di seetaan match julli ci ginnaaw imaam bekkeroog mu pare ñu bindal la yiw ku taxaw guddi bi yëpp di ko la defe naa lii moo ko génde kon ndegem weer bi benn yoon lay ñëw ci at bi douze mois weer bi benn yoon la ciy nekk mooy neuvième mois ci calendrier jullit ñi kon neuvième mois bi nga xamante ne mooy weeri koor nañ leen ko bokk dundal ko bëccëg bi ak guddi bi nañ leen dundal bëccëg bi di ko woor di tudd yàlla di dem fu ñuy jàngee alquran di teewee xam-xamu diine fa ñuy tasaaree xam-xamu diine ñuy teewee béréb yooyee guddi bi nuñ koy dundalee mooy nañu taxaw ci ginnaaw imaam juleen door ak moom gee déglu bayaan après ñu jog dugg ak moom ci salaatu tarawih bu ñu defee lii ah su boobaa yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dinañ la bindal yiw comme ku taxaw guddi bi yëpp di ko naafila moo tax mu ne qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi baaxee na xeetam sallallahu alayhi wa sallam man qaama ma al imam képp ku taxaw ak imam di julli tarawih xataa yansarifa ba keroog imaam di di noppi si julli naafila yi kutiba lahu bind nañ lañ kookee xiyaamu layla comme ku taxaw guddi bi yëpp di ko naafila moo bu fekkee ni lii mooy julli naafila ci ginnaaw imaam ci tàmbale ba ba keroog muy jeex ñu bindal la comme ku taxaw guddi bi yépp kon lii jar naa taxaw ci ginnaaw imaam nga ànd ak moom ndoor gee nga ànd ak moom jullendoor naafila ànd ak moom juleen ndoor safak huit heures ñu bindal la comme ku taxaw guddi bi yëpp di ko naafila allahu akbar su ko defee boo demee sa kër mën ngaa nekk ci sa bopp fekk manq nga yiw yee yiw taxawaay guddi manq nga ko bindal nañ la ko ci sa registre waaye nag ah fekk na bu sa soxla jotee na nga dox sa soxla waaw mais lu lay tax a jox yiw bi fekk loolu remplir nga ko lii baaxul baax na kañ li jarul def ah jar na def kon yow mi ñuy topp ci réew Rewmi TV canal 108 canal TNT 108 yow mi ñuy topp ci Rewmi FM 97.5 moo xam ci plateforme bi la YouTube wala Facebook nañ leen bàyyi xel xadis bi saa yi ñu dogee dégg nodd na sa xel dem ci xadis bi nga dégg ci réew Rewmi TV wala Rewmi FM su ko defee nga daw dem ci jàkka ji daal di taxaw ci ginnaaw imaam jullendoor ak moom gee ngeen julli taraawih julli safak witr ñu bindal la yiw comme ku taxaw guddi bi yëpp ja'alana allah wa iyyakum min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana su ko defee ñu ànd ak suñu technicien bi mu daal di ñu àndil beneen buntu bi nga xamante ne moom la ñu war a suuf ci buntu bi bi iznillahi subhanahu wa taala mbokk yi ñu leen di fàttali ne bi léegi yéen a ngi ànd ak euh, émission bi fii jaar di jotaayu koor ci Rewmi TV Cheikh Malick salaatu tarawih boobu ñuy ñuy tudd noonu moo nekk nii salaatul tarawih ba ñuy tudd noonu moo nekk ni salaatu tarawih julli naafila bi ngay def ci gannaaw imam gannaaw bu mu joxee faratay yi ge yonent bi qaala rasulullahi yonent bi wax na sallallahu alayhi wa sallam yal na ko buur yàlla yokk xéwal ak mucc man qaama ramadanan képp ku taxaw guddi yi weeri koor lu koy taxa taxawloo mooy imaanan ngëm yàlla nakalal wa ixtisaaban ak faggutee fu yiw ba tukkee fa yàlla ñaar ñi bu dee ñooy fondement wu la tax nga taxaw guddi weeri koor yàlla nee na mar la war lool lii man mii man yàlla maa la war lool la ma la bëgg a wax ni yonent bi nee na xufira jeggal nañ kooku maa taqaddama la mu jiital min zambihi ci bàkkaaram rawahu buxaari wa muslim hadis bi buxaari ak muslim ñoo bokk solo hadis bi si di xaaji malik ñu déggee ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man qaama képp ku taxaw ramadanan weeru koor ah lu tax nga di ko taxawal loolu moo jara laaj ana lan moo nekk ci yéeni ngir nga taxaw weeru koor mooy imaanan ngëm yàlla yàlla la ko santa moo tax nga di ko taxaw yàlla la ko digal moo tax nga di ko def moo tax mu ne képp ku taxaw weeru la tax nga taxawee ko mooy imaanan na ko ngëm yàlla lal wa ixtisaaban ak fu yiw ba tukkee ko fa sa borom yàlla nee na fàgguteef boobu tax nga taxaw weeri koor ngëm yàlla boobu tax nga taxaw weeri koor kon yàlla nee na moo la waral lii ma la bëgg a wax ni gufira lahu yàlla dina la jéggal maa taqaddama li nga jig li nga jiital min zambihi ci sa bàkkaar bu dee yàlla dalaa sas leneen lu dul taxawaayu weeri ngir mu jéggal la sa bàkkaar noo koy def noo koy defee foo koy defee kañ ngay nekk ci sa yitey bopp moo tax mu teggil la loolu yëpp mu ne la andil naa la weer woo xamante ne ci at bi benn yoon lay ñëw kon bu ñëwee nanka teeru ci ngum yàlla ak faggutey fu yiw ba tukkee ko ci yàlla su ko defee yàlla jéggal sa bàkkaar ya nga jiital ndax yàlla mooy ne reconnaître bàkkaaru jaam bi mooy valider bàkkaaru jaam bi kon bu fekkee ne am na piscine bum la andil nela soobul ci piscine boobu dex baa ngi nii soobu si nga sangu si ba set boo génnee ma solal la yére bu bees tàq doo taq dara ah piscine boobu bu fekkee ne ñëw na ci at bi benn yoon te mu doon weeru koor na leen géem a góorgóorlu remplir condition ya nga xamante ne mooy tax yàlla suñu borom mu du ñu jéggal suñu bàkkaar moo tax ki mu yónni ci xeet bi ki nga xamante ne lépp lu mu xam lu baax wax nañ ko xeet bi wax nañ ñu ko laayee nañu biir ci loole ba tax na xadiis bi ci laayee biir boobu noonu mu laayee biir xeet bi noonu la ñu déggee xadis bi mu neñu man xaama ramadanan képp ko taxaw weeri koor nga woor bëccëg bi guddi bi nga naafi la ko la tax nga di ko def mooy imaanan ngom yàlla tax nga di ko def wa ixtisaaban ak faggu teefu yiw moo tax nga di ko def ah yàlla nee na gufira kon yow di nga médité jéggal bu tuggee ko fa sa borom lam lay jéggal mooy maa taqaddama min zambihi bàkkaar ya nga jiital kon yow mi ñuy topp ci émission jotaayu koor bu dee da bëgg yàlla suñu borom jéggal la sa bàkkaar na nga taxawee weeri koor bëccëg bi da woor nanga ci jàngal Qur'an na nga ci tudd yàlla na nga ci saraxe na nga jàppale ki nga tane guddi bi na taxaw taxawaayu la ngir nga faggu yiw bay tukkee ko fa yàlla ñaar ñi bu fekkee ni moo tax nga di ko taxawee ngëm yàlla ak am xemmemteef bala yàlla di fay sa yiw yàlla nee na duma la duma la duma la wor dinaa la jéggal say bàkkaar ya nga jiital kon lii mooy ñetteelu bunt bi nga xamante ne andil lii mooy bunt boo xamante ne andil nañ leen ko ngir ñu fas yéene ko waxtaan ak yéen ñu tàbbi ci eeru ndogu bi nga xamante ne mooy waaja a jot su ko defee ñu dégtal leen ñaan bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waajal jamono bu waxtu ndogu jotee ñaan boobu muy ñaan mooy su ko defee ñu andil ñu ko ñu daal di ànd ak yéen bàyyi ko xel mooy hadisu abdullahi bun umar radiyallahu anhu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bu doon waaja ndog kooram da doon ñaan ñaan bi mooy zahabal zama'u wabtallat al uruqu wa sabata al ajru inchaa allah zahaba al zama'u wabtallat al uruqu wa sabata al ajru inchaa allah di ñaan yàlla suñu boroom subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum saliha a'malana allahumma taqabbal siyamana allahumma taqabbal salatana wastajab lana du'aana ñuy gërëm di sant techniciens yu nekk ci cabine technique bi incha allah bu ñu demee julli timis ba delsi ñu daal di ànd ak yéen continuer waxtaan bi bi iznillahi subhanahu wa taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر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 wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa alhamdulillah ñu bokk sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom ñu may ñu fekkee bés bi ba ñu ko yeggale si jàmm lépp lañ si woor yal ko buur yàlla nangul yal yàlla nangul suñu koor yaa ñu wooroon yal na yàlla la si des tamit yan na ko yàlla mattal yan ñu si yàlla jàppale bi ñu si génn si alhamdulillahi rabbil alamin mu nangul ñu lépp lañ ko ñaan bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu président ki nga xamante ne mooy El Hadji Mbagnick Diop hafizahullahu wa raahu ñuy ñaanal suñu DG di El Hadji Moustapha Diop mook mbooleem personnel yay xëy fii ci kër gi ñoo ngi ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala mu suqali kër gi suqali daara ji defal ñu xéewal bu nga xamante ne kawe na suñu njort amin ya rabbal alamin mbokk yi ba léegi yéen a ngi ànd ak réew Rewmi TV fii ci jotaayu koor yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaan bi nga xamante ne moom lañ bëgg a sëf gannaaw bu ñu demee julli timis bi dellusiwaat su ko defee ñu ànd ak suñu cabine technique ka fa nekk mu daal di ñu andil la nga xamante ni moom lañ bëgg a sóob ci waxtaan bi bi iznillahi subhanahu wa taala fa jazakallahu xayran wa ahsanallahu ilayka ya Mouhamed Cissé lii mooy ñetteelu eh, juróomeelu buntu bi nga xamante ni moom lañ bëgg a teg ci kaw langa nga xamante ne moo jàll lu jiitu ñuy jël ñuy dem juli timis mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal yàlla jox ngir mu yënkeewal ko jaam yi mooy aaya bi nga xamante ne moo nekk ci suuratul anbiya yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu di baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin la yàlla suñu borom wa taala jox mission yenent bi sallallahu alayhi da ko du dara du lenn lu nga doon yërmande ñeel mbindaafoon yi moo tax bindkat bi daldi di firi aaya bi ay wa ma arsalnaaka ayyuha rusul illa rahmatan li jamii nnaas fa man aamana bika saada wa najja wa man lam yuminu xaaba wa xasara bindkat bi daldi bind ci suuf nee na loolu mooy aaya bi lu muy firi ci tënk mooy yàlla yónniwul yonent bi lu dul yonent bi doon xéewal ak mucc ñeyal doomu aadama yi képp koo xamante ne gëm nga lakka yàlla jox mucc nga kawe nga texe nga waaye képp koo xamante ne dumóoyu nga ko gëmoo ko faale waloo la yonent bi andi kooku mooy ki nga xamante ne ñàkk na kooku moy pertaange boo xamante ne perte na fii ci àddina perte na ëllëg bés pénc Muhammad Cissé ñu déggee ci maanaa aaya bi mooy wa maa arsalnaaka déet yàlla yónniwu la yow yonent bi loolu sa yonent bi ah len na dong la illaa rahmatan ngir nga doon yërmande ngir nga doon xéwal ngir nga doon mucc lil aalamin mboolem bindaafoon yi mboolem bindaafoon yi la tax yàlla yónni la ci ñoom lenn dong la pour nga doon yërmande ñeel leen loolu xadis ba ñu bugg a teg ci aaya bi mooy firi aaya bi incha allah su ko defee ñu ànd ak suñ cabine technique mu daal di ñu àndil la nga xamante ne moo topp ci aaya bi bi iznillahi subhanahu wa yërmande boobu noonu yàlla suñu borom tabaraka wa taala yónnee bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu noonu yërmande bu mu fees yërmande bu mu lamboo xéewal bu mu moo tax mu wax suñu mu wax ñu si hadis bi xadis bi nga xamante ne mooy qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi moo baaxee xeet bi neñu man nasiya wa huwa saimun fa akala aw shariba فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه مسلم Mohamed Cissé borom bi tabaraka wa ndaw bu mu yónni ci jaam yi ndaw bi nga xamante ne moom la yónni ci jaamaam yi di ar rasulul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wax nañ leen la tax yàlla yónni ko leen na dong ngir mu doon xéewal ak mucc ak jàmm ñeel mbindaafooni yonent boobu noonu fees yërmande ak xéwal moo ñu ne man na siya wa huwa saa'im képp ku fàtte fekk mu di aji woor ci weeri koor fa akala aw shariba mu lekk walla mu naan yonent bi ne fali yatim sawmuhu na mottal na yeggali bés boobu mu woor donte dafa juum mu lekk wala mu naan xanaa li fi nekk kañ fa innama atamahu llah yàllaa ko jox mu lekk wa shaqaahu yàllaa ko jox mu naan kon nga déggee ci ne képp ku fàtte ndax sa organ sa ruux say cir tàmmul ñuy woor tout la journée kon say organe day dal dafa dalal gan goo xamante ne tàmmul mu di ko dalal muy woor kon bu fekkee ne sa organe yi sa cir yi la ñu tàmmoon mooy ndékki la ñu tàmmoon mooy añ la ñu tàmmoon mooy njogonalu su ko defee weeru koor ñëw nga éliminer sa cër yi yooyu yëpp defoo ci benn ah kon bu dee da ngaa fàtte ba def lenn ci ñetti nga fàtte ndékki ci weeru koor bi moo tax mu ne képp ku fàtte mu lekk ci bésu weeru koor wala mu naan ci bésu weeru te fàtte du fàtte fàtte lu de fàtte tax nga lekk wala fàtte tax nga naan yonent bi nee na na nga matal bés boobee ndax yàlla la xéwala loolu nga lekk. waa yàllaa la xëy wala loolu nga naan su ko defee nga xamee ko noonu nga bañ a dog sa koor nga bañ a dog sa koor yonent bi nee na ku fàtte ci bésu weeru mu lekk wala mu naan na nga matal bés boobee xamal ne yàllaa la wërsëgal loolu nga lekk wala yàllaa jox nga naan loolu nga naan moo tax mu ne man nasiya képp ku fàtte wax wasaa'im mu di aji woor fa akala mu lekk aw shariba wala mu naan fal yatimmu sawmuhu na nga yeggali sa koor googee nga koor bés boobu fa innama xanaa lu fi nekk kañ mooy at amahu llahu yàlla la leel wa saqahu yàlla la nandal kon nga xamee ko noonu yow mi fàtte nga lekk ci bisu weeri wala nga naan ci bisu weeri koor jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana yan nañu yàlla boole defal ñu ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet te ñuy topp la ci gën a jub amin ya rabbal kon bi léegi mbokk ñu jàll ci suñu beneen buntu fii ci réew Rewmi TV ci jotaayu koor ngeen di si ànd ak seen mbokku Ibrahima Dramé cabine technique bi di Mohamed Cissé ñu daal di jàll si suñu beneen xadis bi nga xamante ne loolu mooy firindeel ba léegi aaya ba tax yàlla ne yonentu bi ne yónniwuma la loolul nga doon yërmande ñeel mbindaafoo nii ñëpp yonentu boobu ba léegi yërmandem ci mbindaafoo yi xadis bi mu ngi koy jëmmalee ci mbokk soxna yi mbokku jigéen ñi yow mi toog sa saal yow sama tante yow sama sœur yow sama sœur yow sama jigéen yow mi ànd ak ñun ci réew mi TV wala réew mi FM wala ci suñu plateforme déglu leen la leen yonent bi baaxee ci xadis bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xamante ne mooy seen xarit moom mi nga xamante ne moo leen teggil la nga xamante ne moom la leen yeneen nit ñi teg ci coono. muy islam bi nga xamante ne moom la leen andil bem leen teggil coono yeneen leneen noonu islam teg yonent boobu moo bëgg a wax ak ci xadis bi kon ñu ànd ak yéen xerewuloo xadis bi ñu déglu ko taataan ko pare pour dund ko sallallahu alayhi wa sallam lam leen baaxee yéen mbokku jigéen ñi xadis bi jëlee nañ ko si sahaabi bi ngi naan abi hurayrata radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm abi hurayrata nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qaal naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ida sallat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xasunat farajaha wa taat zawjaha qiila laha udxuli ljannata min ayi abwaabin jannati shiti xadisun saxix axrajahu albani Mouhamed Cissé yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis bi day wax ak mbokk soxna jigéen yi lay waxal ne bépp soxna soo xamante ne ida sallat maratu xamsaha dëkkee nga di julli say waxtu juróom ci waxtu ya wa saamat shahraha dëkkee nga di wor say weeru koor weeru koor bu la nga di ko fay wa xasunat farajaha mu toog fañ ko teg toog ci néegi boroom këram garde boppam garde tànkam garde la yàlla dënk wa taat zawjaha mu topp ndigalu jëkkëram mu topp ndigalu borom këram muy wéy ci waawu boroom këram ah condition yi bu ko soxna si rempli fii ci àddina qiila lahaa dinañ ko ne bés pénc udxulil janna kay nga dugg arjanna ñu tegal ko ci nag bunt yaa ngi nii ubbeeku min ayi abwaabil jannati shiti bépp buntu arjanna bu la soob duggee ko bépp buntu arjanna bu la neex jaaree fa nga déggee ne foofu du doon comme suñu buntu addina yi buntu arjanna yooyu du doon comme suñu buntu addina yi de buntu arjana yooyu day wuute ak suñu buntu addina yi kon su ko defee arjana kiru xéewal bu am valeur la bu fekkee ne dañ laa ubbil buntu ya fa nekk ñu ne la jaaral buntu bu la soob bul xam bunt bi nu mu mel bul xam noo fay duggee ak ñelay teeru loolu yëpp da ko war a imaginer ci buntu boobu su ko defee la la koy jox yow soxna si la la koy jox yow sama jigéen mooy nga remplir condition yi nga xamante ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen ko baaxee muy condition ban iza sallat al mar'atu xamsaha loolu di benn ñaareel bi wasaamat shahraha loolu di ñaar ñetteel bi wa hasunat farajaha loolu di ñett ñeenteel bi wa taat zawjaha mu topp ndiglu borom këram su ko defee juróomeel bi alaxira la koy góobe mooy lan qiila laha dinañ ko ne bés pénc udxulil janna kay nga dugg këru xéwal bi ñu naan arjana min ayi abwaabin siiti bépp buntu bu la soob nga dugg mooy soxna si dafa war a fekk mu doon ku respecté julli juróom julli juróom yàlla bind ko mu respecté ko koor bay ñëw ci at bi benn yoon ne ko respecté mu woor ko la tax ñu jox ko boroom këram loolu na ko sàmm na ko respecté keneen ku dut këram bu mu am ci moom accès na toog ci wotu borom këram na téye boppam na takk lafu sëram ñeenteel bi mooy wa taat zawjaha na topp ndigalu borom këram bàyyil bàyyi naa toogal toog naa demal dem naa ila axirihi lépp lu la waaji tere na nga ko lépp lu mu la digal bu mooy yàlla na ci góor-góoru nga def ci sa kémtalay kàttan ñeenti condition yi sang bi neena na sallallahu alayhi bépp jigéen bu ko remplir keroog bis penc dañ la naan kaay xiila lahaa dañ ko naan ey yow kaay udxulil jannata kaay nga dugg arjanna min ayi abwaabin shi'ti bépp arjanna bépp buntu arjanna bi la soob duggil fuufee mu doon duggin boo xamante ne imaginel ngay dugg arjanna ñu lalala tapis rouge xóorul ay na yi taxaw di la jeté ay fleur mu doon anam boo xamante ne foo ko imaginer ci taar weesu na ko ñu naan waaw ndaw si moom lam doon jaamu yàlla ñu ne kii de mooy ki nga xamante ni dafa remplir condition ya yonent bi wax ne bu soxna si remplir li waxtu yu juróom mu wóor weeru koor téye sëram topp ndigalu borom këram lii lay góobee keroog bés penc allahu akbar mu doon honneur boo xamante ne foo ko takk weesu na ko kon yéen bokk soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kii leen jox kado bi su ko defee yow sama jigéen yow soxna si may topp Rewmi TV wala Rewmi FM góorgóorul nga salloo quatre conditions yi juróomeel bi su ko defee ñu remplir la ko ñu honoré la ko keroog bés penc mooy dugg arjana boo xamante ne day ànd ak sac day ànd ak valeur boo xamante ne kenn du ko mën a imaginer ja'alana allahu wa iyyakum min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana bi léegi ñu ànd ak suñu cabine technique bi suñu technicien bi mu àndil ñu benn bunt bu ñu war a sub si bi bi iznillahi subhanahu wa ta'ala ci jotaayu koor fii ci réew mi TV kon mbokk yi ngeen xam ne ñaan mooy loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci maana nee na qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi baaxee nañu nañu laysa shay'un akrama ala ta'ala min ad yonent bi nee na amul dara lu tedd fa yàlla li raw ñaan moo tax nga gis ñu dessiné la fii ki tàllal ñaari loxoom ñaari loxo yi boo ko gisee ku la waxul sax da xam ne kii ku muy ñaan kooku ku màgg la ku muy ñaan moo ko sàkk ku muy ñaan xam na ne la muy ñaan kooku dong moo ko ko war a may moo tax nga gis kuy ñaan mu tàllal loxoom nii kenn du ñaanee nit nii nit boo koy ñaan la mu yoro dafa tuuti la mu yor day jeex sañ nga kaa tàllal sa benn loxo walla ne ko sax may ma waaye yàlla mi xam ne du jeex du jeexal la mu yor du xaaj du jeexal kooku sañ nga kaa tàllal sa ñaari loxo moo tax dafa bokk ci tegginu ñaan anam wii ngeen di gis ba tax na yonent bi nañu sa laysa shay'un amul dara ba dara booloo jeex ak akrama lu tedd alallahi fa yàlla taala buur bu kawe bi mina du'a lu tedd ba raw ñaan ñaan moo gën a tedd fa yàlla lépp lu doomu aadama bi di defal yàlla wala mu di ko sàkku fa moom ñaan moo gën a tedd fa yàlla yàlla bëgg doomu aadama bi di ko ñaan ci li mu tili ci li mu mënul ci li nga xamante ne lottu na ci ba tax na yonent bi ne laysa shay'un amul dara akramu ala allahi la tedd fa yàlla min addu'a la raw ñaan teddaange kon ñu jàll ak suñu technicien bi ba léegi mu daal di ñu andil la nga xamante ne mooy ñaan ba ñu bëgg ñaan ba ñu war a tëj ak yéen nga xamante ne muy suñu waxtaan bi su ko defee ñu ànd ak yéen ñaanal ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñoom lañu fi nekkaloon daaw ak daaw jéeg ak ay at yu weesu ñu di dund ak ñoom yàlla dogal ci ñoom la gën yàlla jëlee lañ ci kaw suuf mu daal di leen teeru ci ron suuf suuf féete lañ ci kaw ñu nekk ci seen biir bàmmeel ñooñu suñu mbokk yi lañ ñooñu suñuy am di jàmm lañu ñooñu suñu mbokk jullit lañu kon dafa war ci weeri koor gi ñu di ñaanal yàlla ñaan bi nga xamante ne day doon kaddu bu jógee ko si ñun ñuy dund mu di dem si ñoom ñi nga xamante ne ñoom amul dara lu ñu soxla foofu ñu tëdd lu dul ñaan moo tax ñu jëlee xadis bi si an afwa bun malik radiyallahu anhu sahaabi bi nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yonent yàlla bi nee na ala janazatin ci néew boo xamante ne min du'aa'i lahu yonent bi daanoon na ko doon ñaanal wa huwa yaquul yonent bi daanoon na wax muy ñaanal néew jooje allahumma gfir lahu warhamhu wa aafihu wa afu anhu wa kirim nuzulahu wa wacci madxalahu wagsiluhu bilmaai walsalji walbarad si Muhammad sahaabi bi nee na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di leen jàngal di leen wottuloo di leen mokkaluloo ñaan bi nga xamante ne daanoon na ko doon ñaanal néew mooy allahumma buur yàlla allahumma buur bu màgg bi ah ñu ngi lay ñaan yow mi sàkku ñu di la ñaan yow mi ñu wax ne ñaan leen ma ma mee leen kon ñu ngi lay ñaan igfir lahu yàlla nga ko allahumma buur yàlla buur bu kawe bi igfir lahu yàlla nga suturaal néew bi igfir lahu yàlla nga jéggal néew bi bàkkaaram yi warhamuhu yalla nga ko yërëm yàlla nga ko yiir sa malaanu yërmande wa aafihu yàlla nga ko noppal foofu muy jëm waafu anhu yàlla nga jéggal ko yàlla nga sutural ko yàlla nga ko noppal ci mboolem jafeñ-jafeñ yàlla ma lay ñaan wakkiram nuzulahu béréb boobu ñoonu ñu di ko wàccee foofee pax bu xat boobu ñu di ko wàccee foofee pax bu doyadi boobu yalla nga ko teralal yalla nga ko defal place bu kawe yalla nga ko yaatulal foofu muy dem tëdd moo tax nga ne ko wakkiram nuzulahu yàlla nga teral wàccuwaayam wa wasi madxalahu yàlla nga ko yaatalal foofu ñu di ko dugal nga teg si ne waxsiluhu yàlla nga ko sang bil maa'i ci ndox wal salji ak ndox bu sedd guy ni glace wal barda ak lépp lu sedd lépp lu sedd yàlla nga ko ko teeroo ci foofu muy jëm yàlla nga ko teeroo lu sedd ni glace waaye yàlla nga ko sang jële ko ci ay bàkkaar yàlla nga ko sang jëlee ko ci ay njuumte comme na nga koy sange ci galaas wala yàlla nga ko teeroo comme lu sedd ni galaas yàlla nga ko teeroo lu sedd ni galaas wala yàlla nga ko teeroo lépp luy lu sedd nga teg si ne yàlla nga teral yàlla nga ko teralal wàccuwaayam foofu muy dugg foofu ñu di ko dugal di ko fa tëral yàlla nga ko yaatalal foofu kon yow mi ñuy topp ci Rewmi TV réew Rewmi FM canal TNT 108 wala Rewmi FM 97.5 wala ci suñu plateforme Facebook wala YouTube jëlal sa big ak fuy wala nga préparé jël note xam ne bërëb bi da ko war a jàng mokkal ko mooy bind bu bulo bi ñuy seen nii allahumma igfir lahu warhamuhu wa aafihu wa afu anhu wakrim nuzulahu wa wasi madxalahu waxsiluhu bilmaai walsalji walbarad ñaan bi boo ko ñaanalee sa néew yàlla dina ko ko defal lanka détaayal fii yàlla dina ko defal lanka ñaanal fii su ko defee ñuy yët ko ko mu naan kan moo ma yónnee lii ñu ne ko sa xarit sa mbokk sa àndandoor ba nekk àddina fàttewul la kooku moo ñaan yàlla yàlla defal la lii su ko defee béréb bi doon béréb bu mujj ayib ci moom béréb bi doon béréb bu yaatu ci moom ñu daal di ko sang ndox bu sedd ak ndox bu sedd ni galaas ñu di ko àndil foofu lépp lu sedd li nga xamante ne ñaanal nga ko yàlla ndax mënuñoo togg jox leen mënuñoo xotti jox leen mënu lañ mënuñ mënuñu leen yóbbante xaalis ndax du loolu lañ soxla foofu kon lañ fa soxla mooy ñaan kon yow mi ñuy topp ci chaîne bi jëlal la nga xamante ne mooy sa bigg ak fëy nga daal di note ñaan bi allahumma igfir lahu allahumma igfir lahu warhamuhu warhamuhu wa aafihu wa aafihu wa afu anhu wa afu anhu wakrim nuzulahu wakrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu waghsilhu bilmaa'i bilmaa'i wal salji wal salji wal bard wal bard nga daal di ko tëjee lii kon mbokk yi lii mooy suñu émission bi fii jaar di jotaayu koor fii ci mi Rewmi yi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana tey lii lañ leen andiloon ci ndimbalu technicien yi ñu àndal ci wàllum xarale gi di Mouhamed Lamine Cissé ak Sidi El Hadji Malick Faye ak Mohamed Sarr ñu di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla taxaw ci zahir ak ci baatin amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina waslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfaz biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasma'un بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu shahru ramadan alladi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من